Sénégal am naqar ak tiis ginnaawu dëddug àdduna Alioune Badara jaañ ñu gën koo xam ci turu Golbert Diagne Alioune Badara Diagne nekkoon ku ñu ràññee woon lool fii ci Sénégal waaye tamit ci àdduna bi yépp mu ngi génne àdduna ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent mu nekk lu tis lool ba tax na ñun équipe lima metti point com ñu ngi koy jaale suñu bopp di ko jaale famille bi te di ko jaale àdduna wërngal képp di ko ñaanal yal na ko yàlla suñu borom yërëm te xare ko ca àjjana ya gën a kawe à jamais Golbert Diagne à jamais le grand maître à jamais l'éducateur à jamais le monument oui À jamais l'exemple typique de l'exemplarité. À jamais la figure emblématique